24 point net l'information à yàlla na ko yàlla yërëm kawe ko ci àjjana ji gën a kawe dundam gépp jox na ko Serigne Saliou te loolu am naa ci seere ndax amoon naa ak moom kóllëre gu fort moo tax maa ngi koy ñaan lépp lu mu doon liggéey Serigne Saliou rek yàlla bu ko réccu yàlla na doon ci moom lu kawe njortam daare xel koom 15 daare yëpp boo ci dem kees gañ tuddee keesuk sëriñ bi bâtiment bu fa nekk terrasse moom moo ko tabax moom moo tabax euh, euh, daaray ngaabu moo ko tabax euh, moo tabax bi ñuy wax jaatuma fa ci côté police ba moo ko tabax bari na daal fu mu liggéeyal sëriñ bi foo xam ne dooleem jëpp jox na ko sëriñ Touba waaw kon ñu ngi koy ñaanal bu baax bu mu réccu dara dara dara dara lu doon nekki ak sëriñ Saaliw na doon suñu borom ayo ko kayo ko ci àjjana ji gën a kawe te am nañ ci moom njort ndax maanaam eh, Serigne Saliou mos naa wax 2007 ne woon Serigne Touba suñ Masamba Diop Samb mos na koo laaj ne ko ma Masamba ne ko ne eh, suñ Masamba Diop Samb moo wax suñ mag bi ne ko damaa tiit ci yow may nekk ci alxuraan mu ne ko waxal yaw ma may ma dégg moo wax ñaar mu ne ko àgg man Masamba mu ne ko yow ma nadoo kulla unaasin bi imaamihim bis penc bi nga xam ne danañu woo bépp nit ak téere bi jëfam wala bépp ñii dañ koy firee téere jëf ñii di ko bi imaam yi ak seen njiit waaye lu ñu mën a mooy bis penc ba boo xam ne dañuy woo bépp nit laaj ko la mu doon jëf ak njiitam Sëriñ Tuubaa ne ko ma sàmb foofu kat tiituma fa te yéen samay taalibe tiitali leen fa kon ñu ngi ñaan Sëriñ Tuubaa teertu ko dugal ko ci àjjana ji gën a kawe ndax liggéeyal na Sëriñ Tuubaa liggéey bu rëy rëy boo xam ne mënoon naa cee def tem ndax man mos naa ko waxtaanal 2007 yóbboon na ma meer mos boobu maa ngi eh, tuubaa yàgg na eh, ma xam ci moom bëgg Serigne te ñaare ñi ko xamul ñu bari rek ñoo ciy wax waaye maanaam boo jaxasoo moom rek xam ne jaxasoo nga ak nit ku woyof ku jàppul kenn lenn ku yéene ñëpp jàmm li may ci ay nit ay kër dëkkal leen dundal leen rek eh, bari na maanaam moo tax kon dañ koy ñaanal suñu borom kawe ko ci xaare ko ci àjjana ji gën a kawe njabootam gi bàyyi tamit yàlla sàmm leen sàmm ñu ñun ñëpp di jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi gis ngeen seen waxtaanu koor tey ak borom xam-xam macha allah di sëriñ Basiru Jenn mbokk yi dafa doy sëkk rek bu ñu waxee sët ci sëriñ Cheikh Issa Jenn macha allah ci waxtaan gu sell gu rafet gi ki euh, waxtaanu koor ak taw tawhid macha allah mu ñu di la ñaanal bu baax rek sunu borom euh, doo lay guddal sa fan lool nu ñu ko daawee def rek dafa la taw tawfiix ak tey si rek na jaaxa dafa la saxab daa nit ci barke sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul nga yàgg lool di jëflanteeg ak askan wi waaye di yàgg lool di ànd ak askan wi itam di leen dimbali euh, xamante ni ci wàllu moo xam wàllu tawatu zaahir ak baatin ni nga xam ne askan wi xamee nañ la ko di la ko ñaanal bu baax a baax mbokk seen waxtaanu koor la woon ngeen ci doon ànd ak seen mbokk taalib Mouhamadou euh, Lamine Muntaxa ci wàllu présentation bi ci wàllu caméra bi itam di ki doon ànd ak Cheikh Libaas euh, di leen jox dig daje beneen ci waxtaanu koor dina wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.